kaso bi garde à vue avant ñu leen di libérer. dans dans la soirée. <laughs> ci kaso bi waaw dem ci kaso dem nañ dem nañ ci dem nañ ci dem nañ ci garde à vue. avant ñu leen di libérer dans la soirée. massawu leen ci coono bi nga xam ni tey nguur gi teg na leen ko. marqué aussi la solidarité du Parti démocratique sénégalais et de la coalition Wallu à ses leaders l'opposition yu ñu brutaliser comme démb ni ñu brutaliser le député Guirassy ñu masawu ko aussi wax rek ni d'accorduma du tout ci li maître wax léegi d'accorduma ci du tout parce que il y a deux ans Barthélémy annoncé na sa candidature kon il y deux ans xam nañ ne yi dina am te Barthélémy Dias dina ci nekk candidat kon l'excuse que wax nañ ko depuis le mois de de juillet ne tient pas la route du tout ma bëgg fàttali également que ce dossier de Barthélémy Dias fukki at la ça fait dix ans en dix ans le pouvoir de Macky Sall amul possibilité wu vider affaire bi or Macky Sall lui-même taxawoon na ci kër Barthélémy Dias ni ko defoo dara. dangaa loolu moom moo ko def euh, dangaa def euh, self légitime. Euh, légitime défense. Mhm. alors ce problème jëlaat relancé na machine judiciaire bi lorsque Barthélemy a refusé mu dem topp ji président Macky ànd ak moom. mi wane ni kon président Macky def na ma nee na. mooy instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques et ça il faut avoir que les Sénégalais et aussi le courage de dire la vérité telle qu'elle se présente frontalement mhm. lu tax du premier cas mhm. président Macky Sall première entreprise de destruction de ses opposants di utiliser justice mi ko tàmbalee ci Karim tëj ko en violant tous ses droits condamné ko sans avoir donné benn preuve ka lañ ko doon tuumaal def na ko exilé ko génn ko réew mi. loolu beneen débat benn ñaar mu defaat ko ci nga baal ma. dama lay justifier. waaw ouais, d'accord c'est l'instrumentalisation de la justice. waaw waaw waaw loolu laa lay démontrer. ok. allez-y waaw parce que la ñu condamné Karim Wade chaque fois que treize fois bi Karim Wade demee sur des cours indépendante du président Macky Sall dañ ko dañoo tegg tuuma yi. mu def la même chose ci xalifa Khalifa Sall. Mhm. la CEDEAO dafa dàq li nga xam ni moom la procès bi ni mu demee. moo mhm. ne ni kon bu dee justice nationale rek président Macky am na capacité instrumentaliser ko. pour faagaagal ay adversaire ñi nekk ci kujje politique bi mhm. mu tenté ko une troisième fois avec euh, Ousmane Sonko affaire bi doxut bi conseil la quatrième fois mu ni bëgg naa xàllal yoon Diouf Sarr son poulain bi nekk candidat à la mairie de Dakar mun kon naa faagaagal Barthélémy Dias alors c'est pour dire simplement mhm. que bi ñu nekk mhm. mais muy ñu jëm ci ay élection dans moins de trois mhm. parce que président Macky Sall moo am responsabilité wu mm -hmm. un climat de paix un climat de sérénité mhm. buy permettre que les sénégal man a dem ci élection yi ci jàmm ak dal d'accord Sénégalais bu ci nekk tànn ka nga xam ni moom nga bëgg mu jiite la wante doo faagaagal ñi nga xam ni ce sont des adversaires sérieux pour xàllal yoon ñi nga xam ne ay tokaar lañu si sa biir si sa biir